sëy maa ngi lay nuyu di siyaar bu baax a baax a baax. a la siyaar yow tamit waaw. mu mel ni tey làmb wane ngeen ni yéen ñëpp yéenay bokk ci digg géew bi di dóorantey kurpañ di xeex ngir ku ci nekk yóbbu sac boo xamante ne da nga koy yóbbu sa koñ waaye tey bi làmb wootee gis nañ yéen ñëpp ngeen booloo doon benn say te wolof daf na mbooloo mooy doole. waaw sport lii la laaj sport luy wax à chaque rek bu boole waru tàggale wax dëgg yàlla ñoo bokk boo xam ne mënuñu ko séddoo kon saa su la war a demee su ñu wootee amul ay kii moo wootee kee moo wootee ñëpp war a teew ndax intérêt bi newul interpersonnel intérêt mbooloo la kon nag képp koo xamante ni yaa ngi ci gis sa bopp wala suñu euh, soo ñëwee jàpp ci affaire yi avancé war nga cee ñëw bu xaar ko kenn ku la woo wax dëgg yàlla di rafet lu jotaay bi rafet na macha allah missage bi na te jàpp nañ ne président dégg nañu ndax xam nañ ñu ci njabootam lañ bokk te ñun axlu làmb dañoo bokk ci Sénégal wax dëgg yàlla am nañ yaakaar daal bu ñu fi jógee affaire dina changé si kàttanu yàlla bari dañ doon gis mbër fug fugam mbërëm ak xeexam mbërëm ak jomam ak njàmbaaram pour ñoom bu mbëri jógee rek dañuy dem place de l'Obélisque sànnantey xeer rëkramajali di tàkk mais alors que gisuñu lool non ñun ñoo mag lool ñun ñoo mag ay buuxante te pourtant nag ñiy sànnante xeer wala ñuy buuxante euh, gënuñoo ëpp fula wala ëpp ñu fit ëpp ñu sañ-sañ bu ñu defee loolu mais ñun ñoo mag loolu dañoo toll ni xam nga ñu ngi naan feebar bi xam nga mu ngi jëm kanam kii loolu la war a éviter mais par rapport ak xam nga ñëw fii di sànnante xeer ñun ñoo mag loolu wax dëgg yàlla li gën boo wax rek mbër kenn gënu nekk noobul te gestes yi wane na ko wax dëgg yàlla waaw. non li premier bi la rek am na yeneen ak yeneen yoo xamante ni ñu ngi suñu kanam te yaakaar naa ne ñun si njaboot gi lañ bokk dinañu gëstu quoi. waaw yaakaar waaw jërëjëf.